ومن تبع هداه إلى يوم الدين ورضي الله عن شيخنا أحمد التجاني وعن سائر خلفائه ومقدميه آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته gannaaw bu ñu sante buur bi subhanahu wa taala ci làmmiñ yu lot ci cant gi ñaan ko mu wutuñu julli ñu ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak mboolem saxaaba yi ak taabiina yi ak ñi topp seen njub ba bis penc ñaanal ngërëm suñu wasila ci yàlla Mawlana Seydi Cheikh Ahmed ak mboolem ay muqaddama xulafaa um yëpp yal na yàlla yokk seen leer ñu ngi wax mbokk yooyu yëpp asalaamualeykum wa rahmatullah ñu ngi nekkoon ci téere bu bi ñuy wax jawaahirul maani wa buluugul amaani min fadli abil abbas tijaani téere boo xam ne Seydi Ali Harazim Barrada al Fasi al Maghribi ko def di ci dajale jàngale sëriñ bi ñu toll woon ci jàngale yi nga xam ne sëriñ bi moom la jàngale woon ci alquran ci ay xeetu tafasir di ko yàlla sédd darsu tay bi ñu ngi jóge ci dars bi passé muy laaj yooyu ñu ko laajoon ci xuruful qur'aan yi nga xam ne ñenn ci ulama tafsir yi ñu ngi ko tuddee ak zawaid lu mel ni laa uqsimu bi yawmil noonu yooyu noonu moom la sëriñ bi jàngale ne alquran amul zaida lépp loo xam ne lu ci luy firi dara la ñu gis ko ci beneen barab mu yokk ay xaraf rek dafa amee maana ci baatin boo xam ne bokkul ak bëre xam ku ko xam nag xam na ko ku ko xamul xamu ko ba tey ñu laaj ko mu ne wa saaltuhu radiallahu anhu an maana alxurufi allafdiyati walxurufi alraqmiyati walxurufi alfikriyati maada yujadu عن كل واحد منهم فأجاب رضي الله عنه بقوله اعلم أن الحروف اللفظية يوجد منها عالم الأرواح معناه كل كلمة تلفظ بها خلق منها ملك يسبح الله تعالى فإن تكلم بكلمة من الخير خلق منها ملك رحمة وإن تكلم بكلمة شر خلق منها ملك عذاب وكان من جملة الم... جملة ملائكة العذاب فإن قدر الله وتاب من تلك القولة خلعت على الملك الذي خلق منه خلعة وانقلب منها ملك رحمة والحروف اللفظية لا ظهور لها لا ظهور لها في عالم الحس وأما الحروف الرقمية يوجد عنها عالم الحس maanaa wa hiya alxurufu allati tudraku bilbasari wa ama alxurufu alfikriyati yujadu anha caalamu alcaqli fi lxiyaal fi lxiyaal macnaahu yujadu anha maa yujadu an xukmi altaxayuli ama taxayulu alcaamati falaa yujadu minhu shay wa yuqaalu fiihi tamanna aw tamanni wa ama altaxayulu alcaarif fa kullu maa taxayalahu yujadu fi lxiin wa misaaluhu maa waqaa wa misaaluhu maa waqaa liljawhari imaam aljawhari radiyallahu anhu qaal kaana alayhi janaabatun wa kaana bi misra xaraja yagtasilu min alleyli wa xamala xubza daarihi lilfurn fa aataa xubzahu lilfarraan wa dahaba linniili liyagtasil فلما وقع في وسط النيل واغتسل بعضا من الغسل وقع عليه شبه السنة قليلا فرأى نفسه دخل بغداد وتزوج بها امرأة بقي معها ست سنين وولد له منها أولاد غاب عن عددهم ثم سري عنه فوجد نفسه قائما في النيل يغتسل fa kammala guslahu baaniyan ala ala alladi taqaddama summa jaa ila alfurn wa wajada alxubza kama xarrajahu saaxibu alfurn fa axada xubzahu wa rajaca ila daarihi summa axbara zawjatahu bilqadiyati allati waqacat wa axbaraha bilqissati kama hiya fa makasa shahrayn summa jaat almaratu allati tazawwajaha bi bagdaad tasalu anhu xataa wasalat ila xaaratihi fa sa'ala an daarihi fa qaala laha ahlu lxaara ayna tacrifiinahu fa qaalat lahum ana zawjatuhu wa haa'ulaa'i awlaaduhu fa qaaluu laha maa xaraja min haahuna fa darabat calayhi albaab fa xaraja fa carafahaa famaa ankarahaa fa sa'alahu ahlu lxaarati maadaa taquulu haadihi almar'a fa qaala innahaa zawjatii وهؤلاء أولادي منها ثم دخل على زوجتي وقال لها المرأة التي ذكرت فذكرت لك ها, ها هي قد جاءت بأولادها ودخل بها في ذلك sëriñ bi mu ngi ñëwati ci kéemaan yi ko yàlla may ci xam-xam ci jàngale loo xam kenn mësu koo dégg kenn mësu koo xam loolu la ko yàlla defal gannaaw boromam bi ko jàngal ak yonent bi nga xam mooy sëriñam Euh, alquran bii mu wax ne dafa am ay zawaid euh, walla ulama tafsir yi wax ne yooyu zaida la muy lettre boo xam ne la maana fii kenn mënu koo firi ci kaamil bi te gënul ci kaamil bi Cheikh Tijaan nee na fawqa zalika sax dépassé na loolu ma la wax mais amul benn alqur benn xaraf bu nekk ci kaamil bi boo xam ne amul lu mu fay def ci gàttal benn araf sax boo xamee ne buñ ko génnoon ci kaamil bi kaamil bi jag ci waxin amul Ali Harazim nee nag ma profitoo laaj ko ne waaw lettre yi ñuy bind muy a ba ja da wala a b c d wala yu mel noonu mooy comme lang bu mu mën a doon ba ci langue chinois nga xam ne ñoom seen euh, araf daanaka ay tere rek la loolu xuruf xaraf yiñ ciy wax muy lettre yi nga xam ne dañ koy wax tey boo nee nit maa ngi ñëw maa ngi ñëw boobu ay lettres yuñ boole la wala xuruf raqmiyati wala maanaam xaraf yi nga xam ne dañ koo bind euh, arjoodo euh, pulaar la waaye xam nga mënees na koo bind da nga mën a xam ne lii mooy arjodo loolu lettre yañ ko bindee euh, wal xurufil fikriyati ak yeneen lettre yoo xam ne nii dañ koy xalaat mooy nit romb la nga naan waaw kii rafet na de te mais mais waxoo ko sa làmmiñ da koo wax ci sa xel yooyu ay lettre la kon ñetti lettre moo am xuruf xuruful lafziyati maanaam lettre yi nga xam da koo wax ba ku doon enregistré mën koo jël loolu xam nga ay lettre yu composé baat yi nga wax la ak xaruful raqmiyat yi nga xam ne dañ koy bind ci tableau ba nga mën koo gis nii muy livre yeeg yu mel noonu waaye dafa am beneen bu gën a xóot mooy xaruful fikriyat yi mooy xalaat yi ngay xalaat yow mais loolu ngay xalaat ba tënk ci ay wax ay lettre la waaw yooyu lan la ci yàlla jublu xam naa laaj bi bii dafa kenn mus koo dégg lettre yi nga xam ne da nga koy bind ak lettre yi nga xam ne da koy xalaat ak lettre yi nga xam ne da koy wax lu wér na ne yëpp ay jaam lañu ñoom wax yooyu te gis nga nit ñi di nga gis ku am vingt cinq giga wax lépp am na ñoo xam ne bañ juddoo ba tey noppi ñu ngi wax rek mais lettre yooyu noonu dañ bind xamoo am na ñoo xam ne itam ba ñu juddoo xam ne jàng ba tey ñu bind ay livre rek ñu ngi jënd ay téere rek lettre yooyu yàlla da ko mais am na ñoo xam ne ci méditation la ñuy dund mooy tëju wéet di xalaat rek mais loolu ngay xalaat yëpp ay lettre la dañ koy bind Mawlana Seydi Ahmed Tidiane ne yàlla def lettre yooyu ma gis yëpp yi ñuy gis ak yi ñuy dégg ak yi nga xam ne dañ koy xalaat yëpp ay jaamam lañ benn lettre bu ne maa ngi dem ay lettres yu bari la mais maa ngi dem boobu lu ñu gàtt gàtt bul jàpp maa ngi dem bi la yàllay enregistré ci raw lawxul mahfuz déedéet ma ma bi rek xaraf la alif bi xaraf la jim bi xaraf la daal bi xaraf la mim bi xaraf benn bu nekk ak li muy dox nag Cheikh Tijaan yi nee na lettre yooyu ni muy ñett yi ma tudd muy lafziyat yi ak rasmiyat yi ak euh, euh, fikriyat yi buñ ci comme buñ ci wax rek buñ ci wax ci saat yi yàlla day solal lettre boobu ruux boo ne woon dem moo xam dem sant wala dem dem ñaari lettre wala dem boo xësee wax rek yàlla day jël daal gi roof ci ruux ruux bi léegi day day dund mim gi yàlla da ciy roof ruux muy dund maanaam kon nit lépp lu mu wax mbaa mu xalaat ko mbaa mu bind ko bu koy def rek yàlla daf ci dugal ruux ndax léegi mbindeef léegi bu boobaa ruux googu noonu dañ ciy bind benn malaaka boo xam ne day sàbbal yàlla li ci wuutu ruuxu lettre boobu gis nga ka wax wax ji nag bu fekkee loolu mu wax lu baax la maa ngi dem jàkk ja loolu wax la wax jooju wax ju baax la yàlla day roof ay ruux ci lettre yi benn ruux bu ne mu solal ko benn malaaka malaaka boobu di sàbbal yàlla ba yowmal qiyaamati malaaka yooyu noonu bu yàlla naree yóbbu waa ajjana àjjana bokk nañ ci maanaam ña koy servir ci biir àjjana wa tabarakallahu ahsanul xaaliqiin te booleeg lépp lu ñu sàbbaal yàlla yàlla nu koy bindal waajooju xam nga lu tax ñoom ku tax yàlla bindaleen waajee tax waaj yi ndax waaj moo wax baat baat boobu yàlla solal ko ruux mu bindaleen ci ci ngay gis ne ndekete kon wax lu baax amul njëg wax lu baax di nga ko wax mille neuf cent ñu koy nettali ba ren ku mel ni Sidi Hadj Malick xilaas bi nga xam ne mille rek bindoon ba tey ñu ngi koy lijjanti di ko jàngale loolu sax yiwu boppam la mais araf ya kese kese benn araf bu ne dafa am balaa ko bu ko bu bu mu àndal di sàbbaal yàlla ba yawmal qiyaamati lu ñu sàbbaal yow moomu lañ koy bindal kon ki ne subhanallah matuloo ki ne laa ilaha illallah matuloo laa ilaha illallah bi buñ la boo ko waxee rek dañ lay bindal yiw fukki yiw mais bokkul bokkul ak lettre yi lii bokkul lettre bu nekk dañ ci sol ruu bind ci malaaka buy sàbbal nag ba yow ma xiyaamati loolu yow lañ koy fay moo tax wax lu baax baax na bind lu baax itam noonu la mel moo tax ñuy dund ci journaliste journalisme presse écrite bi xamoon ne lettre boo bind i wala a wala o solal nañ ci ruu yaa xam nag ban contexte nga ko bindee ak looy wax Moulaye Sidi Ahmed Tidiane nee na bu fekkee kàddu gi kàddu safaan la da ngaa wax lu bon mooy lu tas ak mbokk walla jëw walla fen wala yu mel noonu ci xeetu bàkkaar yi lettre bu ne yàlla daf koy roofal malaaka malaaka boobu ëllëg mooy bokk ci rangée yow yow mi wax wax ji ñi la war a buggal xanaa kon yoma xaam am na njaayen yoo xam ne nii dinañ am problème parce bu fekkee kàddu yiw goo wax mu doon yiw ëllëg doon teraanga ci yow mais kàddu safaan goo wax au delà de bàkkaar bi mais duma yi duma yu malaaka yi ñu bind ci kàddu googu dañ ci participer xam naa ñi nga xam ne seen liggéey wax la moom da boo ñu jéem di wax lu baax léegi nag kooku nga xam ne bi mu juddoo ba bi mu am ñeent fukki lu bon rek lay def lu bon rek lay wax lu bon rek lay bind dem nag ba xëy xëy tuub ne daal lu mu gàtt gàtt dina mujj ci bàmmeel kooku bu tuubee jéggalu yàlla yàlla ci mbaaxam mboolem malaaka bu mu mësoon a bind ci moom ci kàddu kaddu yi yàlla da leen soppi effacé leen def leen ay malaaka yu baax parce yàlla dafa dogal nit ki moom illa man saaba wa amana wa amila salihan fa ulaika yubaddilu llahu sayiatihim xasanaatin yàlla boo defee musiba boo defee bàkkaar boo demee ba tuub ko yàlla neen du yem ci jéggal la bakkaar yi waaye bàkkaar yooyu nga defoon lay defaat yiw ndax bu yemee ci jéggal la ka rek da ngay melaat ni ñëpp ndax yàgg nañ gis ku ñu tooñ mu ne la bal naa la mu jeex yàlla nag du la baal rek yem ci mais bàkkaar yi ci boppam lay soppiwaat yiw moo tax ma ne yow ma xiyaamati bari na ku dugg àjjana te ay bàkkaaram a ko fa yóbbu bàkkaar bi bi waroon a jur ay dugub mooy ki dem ba waaj a dee tuub jéggalu yàlla deful woon sax yiw yu bari mais yàlla ci mbaaxam soppil ko bàkkaar yi muy ay yiw te bàkkaar yi bari woon lool kooku dem aja ajana la jëm te la ko yóbbu ajana mooy ay bàkkaaram nga xam ne loolu yërmande yàlla rek lañ ko mën a firé yàlla ku baax la moo tax mere nit ñi ba naan da nga leen tëkku naan di ngeen dem safara kenn demul fenn yàlla yërmande yu baree bari la am te mu ngeeg yërmande yu amagul borom kon kaddu goo wax bu dee mbaax bu dee mbon day dund après kàddu gi lettre par lettre Seexna Tijaan nag nee na bu fekkee kaddu yooyu maanaam lettres yi dañ koo bind mu visible nii nga xam ne ñu ngi koy gis nii kon mu ngi ci alamul xissi kooku feeñ na ci zahir kooku itam dañ koy solal ruux moom itam kàddu ga di sàbbal yàlla ba bañ koy noppee gis buñ ko gisatul nag dañ ciy teg fa tabarakallahu bàyyi ko ruux yooyu continuer di sabbal malaaka itam di sabbal euh, waaye donte effacé nañ lettre yi maanaam tableau bu ñu ci bindoon ay lettre far ko wala alu aluwa xale buy jàng alquran ñu bind ko bi mu paree ñu faral ko loolu terewul moom malaaka yiñ ci bind ak ruux yi ñoom continuer nañ ci dund di sabbal yàlla mu des nag araf yi nga xam ne nii araful fikriya xuruful fikriya yooyu mu gën a complexe ndax yooyu kenn gis ko moom kenn déggu ko ñu wax ko kenn bind ko itam ci benn téere wala benn alwa boo mën a gis waaye existe na ndax léeg nga dégg nit naan sànq rek dama doon waxtaan ci sama xel maanaam loolu muy wax ci xelam yàlla ne na wa yaalamu ma fi sudur xam naa li nekk ci dënn yi gis nga li ngay wax sa xel wala di ko wax sa xol te tuddoo ko ci sa làmmiñ ni la ni la yàlla déggee boo doon wax ci sa làmmiñ noonu la lay déggee booy wax ci sa xol ndax wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid waaw araf yooyu nu ñu koy def te defe naa yooyu gën a bari nit li muy xalaat moo ëpp fuuf li muy wax d'ailleurs sax nit li muy xalaat mënula wax lu toll noonu ndax moo gën a gaaw nee na lettre yooyu itam yàlla da ciy sol ruux def ko ci jëmmu nit ki bu ko defee maanaam euh, def ci lettre yi def ci ruux bind ci ay malaaka bu fekkee xalaat yu baax la kazalik malaaka yiw lay doon bu dee xalaatu safaan la itam mbugal lay doon ci borom lii moo tax arifuuna billaahi di jéggalu yàlla ci tabaarakallaahu xalaat bu bon ñoom dañ ciy jéggalu yàlla xalaat bu bon sax nitu yàlla yi dañ ciy jéggalu yàlla parce xalaat bu bon ah du neutre xalaat nga ko waxoo ko mais du neutre moo tax suñu sëriñ Cheikh Al Hadj Abdel Dabakh radiyallahu di wax ne astaghfirullah mimma jaala fii fikri min az-zunubi wa ma ata bihi basari maa ngi jéggalu yàlla ci lépp loo xam ne sama làmmeñ moo ko wax nit sa làmmeñ dina wax yoo xam ne nii car la ngay xalaat sax moo koy yées léeg-léeg itam nga gis loo xam ne la ngay xalaat moo koy yées gis nga bàkkaar yooyu nga xam ne danga koo xalaat rek euh, nit yàlla yi ñoom dañ leen ciy topp donte bu dee sharia kenn du ci bindal kenn bàkkaar Moulay Sidi Ahmed Tidiane nag ne xuruf yooyu mu yi nga xalaat te jotoo ko wax yàlla da koy bindal moom it ruux ak ay malaaka mais nag bu dee li ñuy tuddee imagination xam nga imagination nit tey yàlla bind na nit ñoo xam ne dañoo am doole am kàttan ci imagination ba mën nañ toog imaginer benn film ba mu jeex te film existé wul amul loolu artistes yi ñoo ko gën a mën xam nga tailleur bi nga xam ne toog na rek jekki-jekki imaginer benn modèle ñaw mus koo gis fen romb ko fen mais moom moo xalaat rek ne lii daa war na mën a nekk dem uddi ji tissu defar ko mu réussir ba adduna bi yëpp di ko tuddee loolu moo tudda ak alxayal loolu yàlla dafay may nit nee na bu fekkee nag loolu la imagination yooyu euh, loolu mën na ba a jur dara ci nitu waaye bu fekkee aarif billah la ñoom dañ leen koy toppee ndax imagination wu aarif billah nitu yàlla lu mu xalaat rek am na ndax yàlla daf leen sécuriser ba du ñu xalaat lu amul nee na imaamul jawhari lii nag ku yéeme la xam naa mat naa bàyyi xel imaamul jawhari ñu bari sax duñu mën a nangu waaye sëriñ bi moom dafa bari xam-xam ba nga xam ne dafa bëgg a ne monde visible bii am na fi monde invisible boo xam ne alamul xayal lay tudd mooy euh, le monde de l'imagination moom la sëriñ Babacar Sy di wax radiallahu anhu ne haaja qalbi min sara euh, euh, sara tayfu man yaa axi qad hawa xayal boobu jawhar yi daf ci nettali lu yéeme nee na dafa dafa ame janaaba dafa xëy ame janaaba ñun suñu kër ku ci am janaaba dangay ngay dugal sa salle de bain rek sangu génne mais moom misra la dëkk misra benn source d'eau lañ fa am te mooy île bi niil bi niil bi moo romb buntu kër yi bu doon ndar dañ naan dex bi fa la ñëpp di sangu jee suba bi euh, mu ne nag mu xëy doon dem ci dex ga moom pour sangu ji maa ngi misra moom nag ditu yàlla bu mag la nee na bi ma xëyee pour dem ci dex ga sangu ji nee na ma gàdduwaale farine bi pour rombaale ci boulangerie bi jox ko boulanger bi pour mu lakkal ma ko defal ma ko mburu kon ñaar yooyu moo ko tax a génn nee na ba ñëw ba agsi ci boulanger bi ne ko mburu maa ngi nii maanaam farine baa ngi nii lakkal ma ko le temps ma dem ci dex gi dem sangu ji nee bi ma ñëwee ci niil bi dama sóobu sama genn wàll moo tooy mu mel ni dañ ma nelawloo benn nelaw gu gàtt ma gis sama bopp dugg dëkk bu ñuy wax Irak Égypte nag ci Afrique la bokk Irak ku ne xam na ne mu nga ca Asie da ngay romb sax aljaziratul arabia kon la fa dox ay milliers de kilomètres la mais neena dama dugg ci ndox bi rek mel ni dañ dama nelaw nee na gis sama image may dugg biir Irak di dox ba dugg Bagdad mooy capital ba nee na bi ma ñëwee dugg ci dëkk bi xamante fa ak ay nit yàgg fa ba am fa soxna bi ma fa amee soxna labat ko maanaam ñu may ma ko ma sëy ak moom six am naa sax ak moom ay doom yoo xam ne doom ji ne man maa ko tuddeel sama bopp ah bi ma sëy na moom ba am tuddul li mu doom yi waaye sëy nañ juróom benni at ne nag soxna si man daal dama bëggoon delluwaat nag dëkk ba mel ni daal daf fi émigré bi ne damay dellu dëkk ba pour jéem xool njaboot gen yu mel noonu ndax misra dama dëkk dama fa am soxna ah ndaw si tàggoonteeg moom ne ko boo yàggee dinaa ñëw nee na naka la tàggoonteeg moom bay ñibbisi nee ne xefeet gis boppam ci dex gi mu doon sangoo nee na mu yeggali sangu bi benn por côté la tooyaloon yeggali waat beneen côté bi nee na génn ndox mi dem ci borom boulanger bi fekk juste fekk juste euh, mburu mi di doog a pare nee na mu ngi ko génnee sama kanam ma laxas mburu mi dem sama kër fekk soxna si mu ngi toog ci position bi ma ko bàyyi woon euh, di di ma xaar pour ma indi mburu mi ñu ndékki nee ma ne ah am na lu xew de mu ne ah, ma ne ko de ma ne ko dama fi demoon Maroc dama fi demoon euh, Irak Bagdad euh, yàgg fa ba am naa fa soxna am fa ay doom ma bëgg loo yëg rek nga xam ne loolu la mu ne ko fa kaña mu ne ko nii nii mburu bi ñëw dem naa fi ba am fi soxna ba sëy naa moom ba am ay doom ah, xam naa ndaw si bu doon tey day ree ree yu rëy nag yow da nga doon jënt wala loolu loolu mu nekk daal lu man a xew rek na nga xam loolu Sidi Ahmed Tidiane nee na dañoo toog ak diir rek benn jigéen ñëw Égypte jiital ay doomam di laaj góor gu ñuy wax jëwhër yi lay laaj jëwhër yi lay laaj ba ñu tegtal ko këram ne ko waaw yow lan nga war a xamee kooku mu ne man Irak laa dëkk waaye moom mooy sama jëkkër ñu ne ko jëkkër waa ji mosul génn dëkk bi kii ñëpp ko fi xam kilifa gu mag la mu ne ah mooy sama jëkkër de xale yi moo leen jur comme werante bañ nañ ko ndax euh, loolu bu dee bu dul dëgg tuuma la tuuma ju rëy ñu ne ko ah kër kër mu ngi ne la ànd ak moom nag ñëw ba ci buntu kër gi soxna si fëggal boppam mu fëgg góor gi jub ubbi bi mu ubbee gis soxna si ñu akkolaatante namm naa la namm naa la namm naa la ah mbooloo mu jaxle waaye lii lan la mu ne waa jàkka ji kii sama soxna la xale yi maa leen kenn waxatu xam naa ku ne xool sa bopp génn dem ndax ma yi jëmm ñu xamante ami doom xam nga dañ fa nekk naan foo ko tekkee fuñ fuñ la ko mayee nee na moom góor gi naka lay yegg ci soxna si rek ne ko muy aawa bi kii laa la doon wax sama soxna la am na moom doom yi xam nga lii ci sharia kenn du ko fi ndax diggante moom bi mu sangoo ak bi muy kii mais arif billah dafay liggéey ci xayal ñoom dañuy liggéey ci xayal parce que problème mu ruux la te ruux moom comme espace tënku ko temps tënku ko lu toll ni une minute mën na cee liggéey li muy def looloo tax ngay gis nit yàlla ci lu tolloog lu nit mën a jàngee xul wallaahu ahad ñetti yoon mu wàcc ci ñetti kaami nga jàng xul ñetti yoon moom diggante boobu noonu mu jàng ci kaamil ñetti yoon xam nga ñooñu wax dëgg yàlla buñ dee ay nit itam du doon nit kese kese kese dañuy liggéey ci temps di liggéey ci espace bari na lu la nitu yàlla nettali ci histoire sainte ak yi passé yi fi xewoon fekk na toogul jàng ko ci téere rek di la ko wax moom day jël ruuxam yóbbu ko ba foofu mu xewe woon dundaat xew-xew bi soo ko ñëw di la ko nettali bari na lu ñuy nettali te ñëwagul nga foog na da ko jàng rek wala xelam a neex fekk ruuxam lay jël yóbbu ko euh, euh, maanaam ba ba loolu fa muy xewe mu dunda loolu mu projet euh, projeté dans le futur dunda loolu ba xam ne nii lay demee dellu si ñëw nettali la xam nga ñii duñ suñuy morom hmm? waaye Sidi Ahmed Tidiane sa mbari na xam-xam nee ñooñu nga xam ne ci alamul xayal la ñuy dundee euh, ñoom kenn du leen tënk ci imagination ak yu mel noonu parce que ñoom xuruf yi nga xam ne ci xayal la ci seen xaal la tënku euh, loolu sama sëriñ mas na ma ci nettali dara ña benn arif billah dafa dafa romb benn dëkk defe naa borom ibris moo ko netti dafa romb benn dëkk gis ko mu doon àll bu ne kerte ndeg dara ndoxu fa moom nit yàlla bi mu ne o oh, aka neexoon àll bu yaatu bii te neex yàlla def ko muy dëkk bu mag def fi ay jaamukatu yàlla yu sell def fi ay jàkk def fii tabaarakallahu ak eh, ay marché yoo xam ne ay goro fay jaay di am wërsëg dëkk bi nëta am jardin am lii am lii mel mel daal ni mu ko bëgg noonu mu ko imagine nag àll boobu la romb dem tukki boobu bi muy dellu si àll boobu la eh, maanaam dëkk boobu mu imaginer woon la fa fekk mu fekk fa jumaa ju rafet fekk fa nit ñu set wicc fekk fa ay jardin fekk fa verdure bu rafet nit ñi sol lu rafet et cetera et cetera mu sujootal yàlla sujoot ngir sant yàlla ci yàlla li mu ko defal waaye góor góor dafa romb dëkk boobu rek quelques jours dëkk bi rafet existé wul woon yàllaa ko doon sagal mais existé woon ñoom ci alxayal la ñuy liggéey monde d'imagination loolu nag ku yeggul niveau boobu ku ko wax sax ko te loolu moo dëgg déggoog li Seydi Hadj Malick daan nettali wala boog li Seydi Aliou Guèye wax ne Seydi Hadj Malick moo ko daan nettali te Serigne Cheikh jàngal ñu ko nee na Seydi Hadj Malick daan na toog mu ne ko Alioune di nga gis nii nit nii mu toog di yey guroom mot su fekk du moom moom nekkul moom mu nga barzax di rencontré ay saalihin waaye ki nga yendool ñu ne du moom xam nga lu kimal Hmm? mu man fi bàyyi jëmmam moom dem ki fi toog benn marionnette rek la waaye jëmm ji dëgg moom dem na dem na lijjanti yaay soxlam loolu tax ngay ay nit yàlla mu ne la dem naa màkk ren maa ngi woon ci aj bi te yow tàggoo leen yéen ci benn kër mu ne aji woon na ren xam nga boo ko weddee di nga am gàcce parce que bu ujaat yi ñëwee ne la mag ji nekkoon nag te loolu dal na sama sëriñ ba tey Cheikh Al Khalifa radiyallahu anhu bari na ko dem Màkka yàgg moom yeneen nekkandoo ba ñibbisi boo ñëwee fekk fii ñu naan demagul Màkka ba tey xam nga doo ko mën a gëm loolu mooy aalamul xayaal mu ne wa amal aarifuuna fa lahum tasarrufum bil xurufi ratmiyati wa lahum tasarrufum bil xurufi lafdiyati wa lahum tasarrufum bil xurufi xayaaliyati والتصرف الرابع يسمونه التصرف بالجانب الأحمى ولا يعلم هذا التصريف إلا الرسل دون الأنبياء جعله جعله الله محل أسراره وهو موضع النسب الإلهية وكل رسول بعث إلى قومه أطلعه الله على ما في ضمائرهم ما في بواطنهم من الطبع وما دارت عليه جبلاتهم فعاملهم بحسب اتباعهم ليكون قيامهم بالتكليف fa innahu law lam yakun jaryuhu ala tibaa'ihim la batalat risalatuhu min awali wuhla fama fi ilmi kulli rasulin illa maarifatu tibaaci lummati allati ursila ilayha faqat wala ilma lahu bi tibaaci gayrihim fa lidalika lam yaqtacumma risalatuhum illa ma kaana min sayidina muhammadin sal allahu alayhi wa sallam fa innahu atlacahu allahu subhanahu wa taala ala tibaaci lwujudi kulli ويعاون كل طائفة على حسب طبيعتها يشير إلى هذا قوله صلى الله عليه وسلم حدث الناس بما يفهمون أتريدون أن يكذب الله ورسوله والحديث الآخر قوله صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا وقوله صلى الله عليه وسلم الخير عاد وعودوا كل بدن ما اعتاد Mawlana di wax nag ne araf yooyu muy lettre yi nga xam ne moom ngay gis nii muy ñetti façon yi wala ñeent yi muy lettre yi nga xam dañ koo bind ñu mën koo gis nii ak lettre yi ñuy wax ñu mën koo dégg nii mën koo recopier ak itam lettre yi ñuy xalaat ci génnul euh, mais ak ñeenteelu lettre bi mooy lettre monde d'imagination nga xam ne film bu ñuy imaginer rek nee na yooyu yëpp yàlla may na aarifuuna billahi ñu mën ci def tasarruf maanaam ñoom mën nañ mën nañ jouer avec égal kon ndekete mën ngaa ñëw ci nitu yàlla mu wan la téere boo xam ne démb bindu ko woon démb mu ne lii maaka ko te démb naw woon ndax ay lettre rek lañ cee ñoom mën nañ cee liggéey mën nga toog itam nitu yàlla ñu ne la moo wax lii te wax yooyu bari na bari goo xam ne nii maanaam nitu yàlla mën naa xëy xëy benn bés def dix mille son te ba démb a commencé nga naan waa lii yëpp mu ko wax demam ka itam mën nañu dund ci monde d'imagination gis nga bari na nit yàlla bu nit di yàq mu bàyyi dafa fa nga tëdd mu indi la benn film ci moom benn séquence de film nga géntal ko dara loo xam ne boo yeewoo ca ngay doxee fonk ko ba faw ñoom dañuy jouer ci loolu maanaam lool mooy tasarruf dañ ciy mën a yëngu dafa fekk nag benn bu ñeenteel bi ñoom dañ leen ko tere mënuñu ko sax muy bu ñuy tudde jaanibul ahma jaanibul ahma benn façon tasarruf la boo xam ne dafa kawe kawe kawe kooku mooy tout est possible loolu lay firi ñoom ajuwuñu sax ci tasarrufu ru maanaam ay ay araf yu ñu bind ak yu ñuy xalaat mais pour ñoom tout est possible lu ñu bëgg mën nañ koo def tasarruf boobu dañ ko nëbb trois cent treize prophètes yi rek ñoo ko xam mais ñeneen ñëpp ñoom yeneen ci yeneen yi laa wax de mun amuñ ci accès waxatuma laa nag awliya may laaj nag moom sëriñ bi lu ko xamal léegi kon loolu lan moo tax yàlla xamal leen aljaanibul ahma mooy dañoo mën a xam lépp nitu yàlla yooyu dañuy mën a xam lépp lépp lépp lu yàlla bindal yàlla mën na leen ko xamal looloo tax yonent yi lañ koy jox nee na secret bi mooy yàlla mas sa yónni benn yonent lu dul dana ko jàngal xeet wa mu jëm ci ñoom seeni nature bu dee ay olof lañ dina leen xamal nan la olof mel biiram ak biteem yëpp bu dee séeréer lañ nan la séeréer ci mel bu dee ay pulaar lañu nan la pulaar yi mel maanaam xeet wu mu jëm moom yonent boobu doon ca fa la juddoo kon xam na leen mais baatin boobu yàlla dana leen xamal ba xamal leen li ñuy xalaat ñoom xam nga lu muy bañ mu am déception moom yonent yi euh, yàlla dina leen xamal seen façon jikko ni ñuy doxee seeni aada maanaam ba nga xam ne yàlla bu jëloon benn yonent fii ci senegal yónni ko Chine balaa quitté Sénégal lay dégg langue chinois xam seen waxin xam seeni jikko xam seeni maam ak seeni maamaat te du chinois de juddoo fa yaroo fa loolu benn tëjal lii bu yàlla def ci ñoom la rek bu naturel loolu moo tax bépp yonante maanaam maîtriser aw xeetam nu ko kenn mënta xame mais yonent bu nekk nag fañ ko yónni rek foofu lay xam loolu daloon na Isa ibnu Maryam dafa yónni woon ay xawaari yuun pour ñu ay émissaire pour ñu wëral ko àdduna bi woote ci wàllu yàlla mu am ñu ku mu yónni Afrique am ku mu yónni Europe am ku mu yónni jazira arabia am ku mu yónni Faris am nag ñoo xam ne dañ doon wax naan mën daal vraiment fi ma yónni boo ma yónni woon barab sànga man moo ma doon gënal ndax xam nga fu ñuy dem fu ne dafa am fuy nooy ak fu xaw a dëgër tuuti ak fu tàng ak fu sedd kenn ku ne nag naan man daal boo mu yóbbu woon ci capital sànga moo gën àll bële noonu ñuy werante nag mu leen laa taxtalifu bu leen werante kenn ku ne yebal naa ko fi ma ko yebal ñoom dañ jékki-jékki rek kenn ku ne xeet wañ la yebal langue boobu rek nga mën a wax booy wax ak sama doo dégg nit nag bu fekkee langue bii nga mën a wax doo dem fa fa ñooñu nekk hmm? instant bi mu dogoo rek ne dem leen kenn ku nekk fa mu ko yabal langue boobu rek nga dégg foofu par force dañu dem te lañ soog a dem gannaaw bi yonent moo ko man masa yàlla ci yonent kon mais nee na xeet wu ne fañ la yónni rek ngay xam seen lépp ba mu des kenn muy yonent yàlla muhammad yonent yàlla muhammad moom fan lañ ko yónni ci ñëpp looloo tax mu dégg langue yëpp moo tax yow mi am soxla ne da ngay ñaan ci barke yonent bi jarul ngay làkk arab waxal olof rek moo la ko gën a dégg bu dee français la moo la ko gën a dégg lu mën a doon moom moo la ko gën a yonent bi yàlla da koo jàngal lépp loo xam ne ay jikko la ci xeetu nit kuréel gu ñu mën a bokk dëkk bu ñu mën a dog bokk doy na ci rek Mawlaana Cheikh Al Hadj Omar Fuuti Taal radiyallahu anhu nee na yonent bi feeñu na ko ne ko wattu waa Fuuta na nga wattu waa Fuuta ndax boo wattuwul nangam ak nangam ak nangam wax na ko ci rima xam nga yonent bi dëkkul woon Fuuta ñëpp xam nañ ne yonent bi dëkkul Fuuta mais loolu Cheikh Omar wax ko euh, euh, maanaam loolu yonent bi wax ko ci waa Fuuta ndax ay bokkam lañ ay deretam lañ mais loolu mu ko tere woon bind na ko ci rima te la mu ci doon ragal yëpp loolu mu ci am xam nga yonent bi xamul Fuuta xamul sax Sénégal te loolu du Fuuta rek mais d'une manière générale Sénégal la bëgg a wax maanaam ñoom dañuy xamee dëkk façon boo xam ne nii euh, di nga ci jóge xam ne nit mënta xamee dëkk loolu lu weesu li d'ailleurs nee na déggin googu la yonent bi waxoon ci xadis xam gi mu xam nit ñi ne boo leen di waaraati dee leen wax lu nit ñi mën a dégg xam nga toog ci mbooloo di waaraat di wax kiimaan yu kenn mënta seede yu rëy xam nga ku fa génne wet la yaa wetlu sa bopp yeneen ci biir boo leen xaddisi naasa bi maa yafhamuun na ngeen wax nit ñi lu ñu mën a dégg a turiduuna an yukazaba allah wa rasuluhu ndax da ngeen bëgg nit ñi weddi yàlla ak yonent bi te koo wax lu mu mënta dégg du yem ci ñàkk ko nangu rek waaye dafay weddi te dëgg ku ko weddi alku yàlla ci yàlla musal yeneen ci waxaat na ci beneen xadis ne yassiru na ngeen jàppandal wala tuassiru te bu leen jafel am na nit ñu metti yonent bi loolu lay tere metti baaxul wa bashiru dee leen bégal nit ñi wala tunaffiru bu leen leen dawloo am na ñoo xam ne fu ñu taxaw waaraate bu nit ñi ñibbee kenn du mën a reer ndax waaraate gu tàng ak metti ba mel ni yow li ngay tëkkoo nit ñi yow yaaka moom loolu itam baaxul yonent bi sallallahu wa sallam wax na ne alxayru aada gis na yiw dañ koy tàmmal sa bopp rek xanaa xamoo ne yiw aada rek gis nga ki nga xam ne laazima ak wës mooy dundam bu xëyee laazimul wësfawul day mel ni ku feebar même bu feebaroon dina jug laazim wësfa soo ko tëddaat du ko wàññi dara kon def lu baax da nga koy tàmmal sa bopp boo ko xësee tàmmal rek euh, dana ko def sans difficulté mu ne wa asmaullahi taala innama qaamat bil xurufi wal xurufu kulluha qudsiyatun fi kalaamihi taala wa fi surati ilmihi wa kulluha qadimatun azaliyatun li annaha wujidat fi kalaamihi wa fi ilmihi wa takallama biha alxaqu jalla wa ala bi qawlihi alif lam mim xee miim ayn siin qaaf kaaf haa yaa ayn saad taa siin qaaf nuun ila alaxir ila axiri alxuruf fa kulluha qadimatun bi qidami daat wa laysa qidamuha maa yujabu maa yujadu fi alfaadiha wa yuktabu bi banaaniha bi banaanina wa yutasawwaru fi xayaalina fa laysat hiya alxuruf allati naqul ولكن الحروف القدسية ما كانت هذه الأمور دالة عليها فقط فالحروف اللفظية والبنانية والخيالية هي دالة على تلك الحروف القدسية التي بها كلام الحق إذ لولا صورة الحروف القدسية ما عرفت صورة الكلام ولا تميز بعضه من بعض ولا عرف معانيه فإن التمييز فيه بالحروف فإن قوله سبحانه وتعالى يا, مريم يا عيسى ابن مريم muxaalifun li qawlihi ya iblis ma laka an laa takuna maa saajidin falfarqu bayna iblis wa isa tamayaza bilxurufi walawla alxuruf la kaana kullun minhuma aynun axar falxurufu alqudsiya anha wujidat alasmaau alilahiya kulluha wa anha baraza alamru alilahi biqawlihi kun fa bilxurufi daharat alasmaau alilahiya ma fi lwujudi kulli illa ma qaala lahu alxaqu subhanahu wa taala kun والوجود كلها كلمات الحق فزيد مثلا وبكر وخالد وعمر كلها كلمات الحق وعن كلمة الحق وجدت الموجودات كلها فما فيها خارج عن هذا الميدان فأسماء المسميات من الوضع الإلهي وكذلك الوضع اللغاتي وكذلك وضع اللغات وأساميها هي أوضاع إلهية وضع الحق وأجراها على ألسنة falaw ittafaqa alwujudu kulluhu ala an yadacu asmaan aw lugatan la ajazu walakin alxaqa subhanahu wa taala huwa alwaadicu laha wa sammaha bi asmaiha wa ama alkalaamu alazali fa huwa bilxurufi qudsiyatin munazahatin an alaalaati allati yaqacu nutqu biha wa hiya waaqicun fi kalaami illahi taala bi maana yaani alxuruf sëriñ bi ba tey mu ngi jàngale ci xaraf yi ñu ko laaj xam naa xam-xam bi bëri na nee turu yàlla yëpp ay lettre la xam nga yàlla tiif ay lettre la laam la ak paa ak yaa ak faa nee na turu yàlla yëpp ay lettre la turu yàlla yépp ay lettre la euh, yàlla bind ko ci xam-xamam boobu euh, mu doon nag lu jiitu maanaam yàlla amal ko ci xam-xamam boobu mu doon lu jiitu doon lu cosaanu ndax ci arab yi lañu xamee maanaam baatu yàlla xam nga yàlla bokk na ci ay melokaanam almutakallim mooy kii wax mas ngeen gis kuy wax ci noppi kii wax ay lettre lay utiliser kon lettre yii ñuy utiliser dafa cosaanu ni jëmm yàlla cosaanoo kon du mbindeef ndax ci kàddu yàlla la bokk nee na masala wax bi nga wax ci al ahruful muqattaa ci alquran ne alif laam mim wala xaamim ayn sin qaaf kaaf haa yaa ayn saad taasin qaaf nuun alif laam mim alif laam mim raa alif yooyu du ay nekk hmm? xam nga loolu waxu yàlla la mais waxu yàlla sosul kon lii dafa cosaan kon lettre yi ngay gis fii yépp yow moo la mag teegu dafa cosaanu bokkul ak nag ñun yii ñuy bind ci suñu baaraam yii yii ñuy bind ñun ñoo ko bindal suñu bopp mais dafa am yu muy tegtal mooy yi nga xam ne moo génnee ci jëmm ju màgg ji muy yàlla subhanahu wa taala yi ñuy bind nag dafay nettali yooyu rek ñu ne ko waaw Cheikh lan mooy différence bi mu ne xam nga wax ji yàlla wax ne yaa Isa ibnu Maryam xam nga ay lettres la utiliser bokkul ak bi mu naan yaa Iblis xam nga yaa yàlla rek ak Iblis ak Isa mais nee diggante Iblis ak Insa yow xam nga ne du benn kii ku baax la kër kajales ku bon la nee bu dul woon différence u lettres yi yàlla bu amalul woon ay lettres yu ko différencier nooy xàmmee Iblis ak Insa kon lettres yi ñoo fa jaar te Iblis ak Insa bari na niroo nañ ay araf ndax sii na nga faag yaa ci ñaar yëpp kon xaraf yi dafa cosaanu yàlla bind ci ay turam ba pare def ko muy feeñ waay ci kàddu gi mu waxoon kun kun rek fayakun kon ci ci kun ci la arab yépp feeñee gannaaw bi mu cosaanoo euh, nee na baat bi nga wax ne zeydu ci misaal wala bakar wala xaalit wala amr loolu ci olof moo toll sàmba wala demba wala paate nee xam nga yooyu noonu ay kàddu la mais bu fekkul woon ay lettre am du ñu mën a xàmmee différence ñett ñi nga tudd euh, nee na itam tur yi nga gis yépp maanaam mu ngi différencier li ñu tudd baraada ak kaas baraada ak kaas li leen mën a tàqale moo di ay lettre yoo bind ba ñu xam ne bii moo tudd baraada ñu xamee xame ko ko bii moo tudd kaas ñu xame ko ko ba nga bañ leen a jowaat nee na loolu coobare yàlla la gis nga làng boo fi gis mbaat bu nekk la mu ko tuddee loolu du waa dëkk baa ko def de yàlla ci boppam moo ko def gis nga kudd Cheikh Tijaan nee na adduna bi yëpp buñ daje woon ne li arab di wax mi'laqatu mooy cuillère ci tubaab bu ñu daje woon ñun olof yi ne dañ ko bëgg éliminer ci langue bi duñ ko man ndax lii coobare yàlla la maanaam langue boo gis baat bu ca rek benn par benn loolu yàlla moo ko fa def du ñuy wax langue bi ñoom la neex fi mel ni tey borom ko xam nga nga ne woon da ngay histoire wax kan moo njëkk a wax olof langue olof wala ku ko fi indi léeg ma dégg sax ñuy tooñ naan olof amul waaye ñu ngi koy tudd te lu ñu tudd nag dafa am de même que pulaar ak diversité yi ci am yëpp. ndax fuuta tooro ak fuuta janoo bokkuñu li ñuy wax waaw léegi ak euh, euh, boo demee fële tabaraka fulaadu di nga yëg benn diversité bu ma am waaw loolu lan moo ko ci def loolu yëpp coobar yàlla la amul benn baat laa wax bu ñuy waxee nii ci langue bii te du coobare yàlla moo fa teg baat boobu ba mbokk yëpp bu ñu daje woon ni baat bi bëggatuñ ko dégg dañ ko fiy jëlee duñ ko mën a génn ci langue boobu kon langue yëpp maanaam ay outil la yu yàlla defar outil yooyu euh, moom moo fa teg ay xaraf xaraf yi jur ay lettre lettre yi jur ay sens ak i baat ba langue boobu mën a taxaw loolu coobare yàlla la du keneen nee nag li ñu wax nag ci baatu yàlla xam nga yàlla day wax ñuy laaj nag ndax ñun ni ñuy waxee muy lettre yii nii noonu la yàllay waxee wala déet seen yàlla mu ngi wax ci min gayri xarfin ci lu dul araf ñun ñooy wax ci ay araf te boole araf yëpp xam ne lii la wala sawtin yàlla du waxe ci son koo gis ñu ne diw mu ngi nee di wax avant muy wax dafa noppi woon wala boo koo gis ñu ne diw ma ne moo doon wax sànq bi mu waxee pare dafa noppi yàlla nag waxam mësula jiit ak noppi jiitu ko te du noppi itam daay mu mu takkalim ndax xam nga noppi wàññeekonte la yàlla dafay wax dale ësël laa wax dale ësël ba ëbëta waxam du daanu mu doonul itam son boo mën a dégg doonul ay araf araf xam naa koon bind sax araf di bind ba dee ndax comme comme ba tey noppeegul yàlla du noppi euh, nee na loolu noonu sori gi mu sori moo tax waa mu'tazila euh, ne ñoom nanguwuñu boobu wax loolu ku jàng al aqida ak aqidatul euh, mu'tazila di nga xam seen déggin wow niñ ko gisee mais kàddu gi nga xam ne moo génn ci jëmmu yàlla subhanahu wa taala ndax yàlla nee na wa kallama allahu Musa takliman wax yooyu yàlla di waxi du bul ca bul jàppane dafa wax ak Musa après wax ji jeex mu noppi déedéet yàlla benn son la am amul thème déedéet yi nga xam ne ñoo war a dem doon ay thème ëllëg ñoom ñooy aju ci waxu yàlla waaye yàlla du aju ci ay tem moom euh, yàlla subhanahu wa taala dafa wax ci alquran ne Muusa innani ana allah la ilaha illa ana fa inna alkalaama law baraza min datin oxra gayra daati la kanat tilka daat almukallima hiya almacbuda wa taala allahu an dalika uluwan kabiran fa innahu la yaqdiru ahadun min almawjudat an yaqula innani ana allah la ilaha illa ana illa zaatul muqaddas li lay wan ne yàlla mu ngi wax te du noppi moo di keroog bi mu recevoir yoon yàlla Moussa ci tuuru Sina lan la jëkk a wax inna nii man laa wax man ana man maay yàlla laa ilaha illa ana te moom garab lay gis Cheikh Tijaan na bu fekkul woon ne yàlla du wax nee képp ku waxoon wax ji ku dul yàlla yow looy doon xam waxoo dëgg képp ku ne man may yàlla amul beneen yàlla bu dul man te du yàlla moo xam garab a ko wax moo xam montagne waxul dëgg te Moussa gis nga ab yonent la boo xam ne man mënta wax lu dul dëgg kon mënta sosal yàlla te yàllaa ko wax lii yonent bi ka nekkal ci alquran tam du sosal yàlla kon seen tiyaan nee na nga gisee ci ne donte jëmmi garab la ñuy gis mais yàlla ci boppam moo wax ci feeñuwaayu garab gi ne man maay yàlla loolu lan la ci jublu mooy wane ne yàlla kon mu ngi wax euh, ida arada alxaqu an yatakallama alqa alkalaama fi datin min aljamalat muxbiratan anhu bi damir wa hada fi gaayati albodi yàlla nag bu nammee wax day jël feeñuwaayu waxam boobu nga xam ne du noppi léegi feeñoo ko ci garab gi leeram lay jël génnee ko ci garab gi leeram googu mooy wax lii waaye bokkul ak jëmmam ji nga xam ne du noppi moom min gayri sawtin wala kii bu ko defee jamaat boobu moom mooy commencé di wax nga foog ne moom euh, ci yàlla moom mooy yàlla fekk déedéet feeñuwaayu yàlla la subhanahu wa taala amma yushrikuuna wal kalaamul azali laysa fihi taqdimun wala taaxirun wala xasrun wala maddatun wala kayfiya ida baraza alkalaam bi aynihi yaani kalaamul xaqi min xaysu ma huwa huwa wa samictahu zaala anka al albaasu kulluha wa hiya alquyudu wala ayta alwaqta xiina idin ذلك الوقت الذي كان قبل الوجود الكائنات أنت فيه الآن وهو الوقت الذي كان في الأبد الآن nee na nag li ñu li ñu réeral ñun ba nga ne waaw yàlla mi waxoon ak maam aadam nan la mën a continuer di wax ba tey jii te noppeegul te nga ne li muy wax yépp di doon maanaam lu aju ci mbindeef yi mu ne xanaa amoon ne wax ji génn ci jëmmu yàlla originalité xam nga waxoon nañ ne ni ngay réeree jëmm ji noonu ngay réere melokaanam yëpp kon nan la yàllay waxee loolu ni ngay réeree jëmmam noonu nga koy réeree waaye na nga ci xame ne yàlla bu waxam amul avant amul après amul pendant wala xasra amul lu koy takk wala maddata amul matière bu muy waxee wala kayfiyata amul façon boo xam ne dañ naan nii la yàllay waxe moom daal luy génn ci jëmmam la loolu nag bés boo bu la yàlla bindoon dëgëral la ba nga mën koo dégg di nga yëg ne ndekete waxam ajuwul ci espace ak temps parce que espace ak temps mbindeef la te moom li muy wax jëmmi boppam la loolu moo tax waxam du am temps du am espace ñu naan yàlla waxoon na daaw jég déedéet ndax wujut yëpp ci boobu cadre lañuy tegu mooy ay mbindeef lañu te moom comme du mbindeef da ngay gis ne boo déggoon waxam da ngay yëg ne avant dara di am la mu doon wax noonu lay dund ba tey jii bu ñu demoon ba lépp ñàkkitam itam kàddoom du dama bëgg a wax ne ci originalité bi rek la am waaw lan moo tax nag mu ñun mu lënt ci ñun ba nga xam ne dangaa noo oh, di yàlla moo ko waxoon fii di yàlla moo ko waxoon fii mu ne xijaab yooyu ci ñun la nekk li nga nit booy jaamu yàlla ba xijaab yooyu yëpp dañ ci yow ba nga am chance déglu kàddu yàlla ak niveau boo ko mën a déggee donte xaqiqa bi yonent yàlla Muhammad moo ko am ak yonent yàlla Moussa waaye bis boo déggee yàlla di nga xam ne temps existé wul espace existé wul wa amal albaasu wa hiya alquyudu allati fi alkalaami alazali fa innaha hiya fi waqti alxijaabi faqat la gayr qaala ibnu alarif radi allahu anhu yaqulu fi llahi taala laysa baynahu wa bayna alcibaadi nasabun yastafi li ajli aw yuctihim li ajli laysa illa alcinaayatu wa hiya almashia wala sababa illa alxukm ولا وقت إلا الأزل وما بقي فعمل والتلبيس ومعنى الأزل هو الذي فيه وجود الحق وحده ليس لشيء فيه ليس لشيء فيه نسبة قال صلى الله عليه وسلم كان الله ولا شيء معه ففي ذلك الوقت أعطى ما أعطى وفضل وفصل ما فصل فلم يبق إلا الرضا والتسليم لمجال الأخطاء انتهى ما أملاه علينا Moulay Cheikh nag di wax ne Euh, ndekete kon xijaab yi dox suñu diggante xam ne yàlla subhanahu wa taala maanaam kàddoom amul espace amul temps amul ay xaraf dara teguñu ko lu dul xijaab yi ñu nekk nii nee na bu ci yàlla de dimbali woon ba ñoril la ba muril la xijaab yi nga nekkoon nee na sikk yooyu nga amoon dina dañ ci yow nee na arif wax na ko yàlla nit yàlla bu mag la dafa wax ne yàlla maa lay yëgal ne sa digganteeg sa jaam yi amul askan bu boo bokk ak ñoom maanaam yàlla bokkul ak kenn dara askan woo xam ne daal yàlla bokk na kaam diw ne vraiment diw faw ma defal ko dara ndax ñoo bokk bàjjen wala sama ndijaay laa xam ne nu ma ko def yàlla ko am fulal fexe na bokkul ak kenn dara ndax bari na loo def sax te sa xol d'accord ci mais da naan bi laa xamul nu ma koy def yàlla nag bokkul ak kenn dara kon kenn ku muy tànn ngir sama doomu nijaay la yàlla moom din na ko ci boppam mu ne itam fexe na ba kenn du ko chantage maanaam kenn mënu ko moom mooy as samad moom mooy alxanim kenn mënu koo jariñ te olof nee na ku ëmb sa sànqal ëmb sa kersa yàlla nag comme amul sànqalu kenn moo tax moom la ëmb kersa kenn kon moom li muy def daf koy def luci avec lucidité mooy ku mu tànna moom lay neex ku muy torox itam coobareem lay doon ndax toppewoo ko dara xam nga foofu la xam-xam yem euh, moom nag Ibnu Arif mu ne yàlla amul lenn lu muy tànn benn critère bu muy tànnee nit lu dul tooba rek yonent bi li muy baax baax baax baax ak li teraanga yi rëy rëy rëy participé wu ci dara de pour doon li mu doon déedéet yàlla la neex rek moo tax ndeysaan boo ko masaan a tagg murus ne taggal sama borom kuy tagg na nga tagg sama borom dëgg la yàlla tagge na ko jikko ju rafet wala dëgg yàlla tagge na ko jikko ju rafet mais ku ko may moom yàlla moo ko may jikko joo ko di ko taggee lu mu ko taggee rek dafa baax moo tax di wër dëkk bi naan sama sëriñ fi raw sama sëriñ a bu mag bi yaa ngi bëgg rey ko ko jox borom bee ko jox kon borom bee am ngëneel moom amul amul ngëneel dara la ci amul lu yàlla jox ko rek mu jël te naan yàlla jërëjëf mënuma laa fay kon ngëneel yëpp dafay delluwaat ci yàlla ibnul arif ne yàlla jotewul ak kenn dara bokkul ak kenn dara lu tax muy def pression pour may nit mbaa xañ ko li fi de xew daal mooy yëpp démb la xew yëpp démb la xew dogal yëpp démb woon mu sédd ñi muy sédd xañ ñi muy xañ ku fi ñëññi nag da nga delloowul yàlla njukkal koy iñaane amu koo fi mere rek naan waa ji ni mu soofe ah di soof soof maanaam këram gu rafet gi ndax ak otom bu rafet bi oto bi jox ko boppam oto bi jox ko boppam kër gi jox ko boppam yàlla miy séddale moo ko jox yow mi ñu seddagul nag da waroon a ñaan rek yàlla jox la ci séddam yu baax yooyu euh, te dama ragal ne dañ la séddul ndax séddale gi démb la woon moo tax dañ la séddul xam nga bu ñu la séddoon démb doo ñëw ba fii di iñaane kenn nee na loolu moom la jullit war a xam noppul gis nga boo xamee ne dara beesul ci àdduna man damay wax ne xikma bi bu ko nit ñi xamoon rek dañuy nopp bari na koo gis maa ñaanal ma temps yëpp maa ngi ci ay lijjanti mais li may lijjanti yëpp sottiwul maa ngi lay yëgal ne li ngay lijjanti bu sottiwul woon ci ësal du mën a sotti fii noppalu yàlla léppam na léppam laa loo war a am bi juddoo liir bi muy juddoo buy dugg ci bàmmeel dara dara yokkuwul waaw léegi nag bëgg a lijjanti luñ la lijjantilul ci ësal mën naa nekk coono bay bari nga mere ñëpp saaga ñëpp te kenn defu dara moo tax nit ñi nañ dellu ci yàlla yonent bi nee na kaana allahu yàlla dafay nekkoon wala shay amaahu te àndul ak dara ñi mu ko waxee si turandoo Seydina Ali roof kanam gi nekk xatal an la shay amaahu ba tey dara new fii ba tey dara new fii moom rek fi ne jamono jooju fi yàlla wéete woon nag ci jamono jooju la jox ku mu jox soo ko dem la tàqale lu mu tàqale la gënal ku mu gënal biñ ñu indee fii nag ci àdduna maquette bu dawoon la ba pare film bi nag ñu war koo dawal xam nga falam yabqa desu fi illa rida lu ñu dégg rek kontaan ci li yàlla dogal wa tax lii mu ak jébbalu li majaaril aftar ci coobare yi ni muy doxe waaw fas woo xam ne waajal nañ la bu dugal la ci mismaar bi nga ne ne la dawal ngay siicu naan noo bi reeru ma xam nga ne yow na nga nar a jël ndarde rek ndax yow même boo waroon a reer sax yeneen yeneen kon ndegete iñaan ñaanante gu metti gii nga gis bañante geeg xasante gi dara ñàkk xam ne yàlla pare na démb dama ne puso puso laa wax bu war a yokk ci sa alal boo xam ne fii nga koy lijjantee ci àdduna yàlla programme la fi nga juddoo laa wax ba ba ngay dee puso bu ci war a yokku laa wax bu ci war a yokku boo xam ne bokkul woon ci li yàlla programme yi nga war ko am fii munul nekk naan benn guuxu ndox mu sedd moo xam ne bokkul woon ci sa wërsëg ca ësël ba banay dee mënta nekk kaasu attaaya boo naan boo xam ne ni boole yàlla boole ko woon ci programme bi mënul nekk waaw lijjanti bi lan la kon moo tax ñii lijjanti ñoo gën a sonnal ndax wax dëgg yàlla ku lijjanti da ngay lu nekk te yàlla daram li lépp a sotti yàlla yàlla fayal ñu Seydi Ahmad Tijaani xam nga ne lii kuñ ci yàlla yu bari du la safati wa mimma amlaahu alayna radiallahu anhu fi mahabati dati al aliya euh, radiallahu fi mahabati dati fi hada al maana xiina kusifa bil xadrati al aliya euh, fi mahabati dati qaala radiallahu anhu mahabatu dati saabatu lmarad wala takunu illa lil aarifi alkaamili wa fi dalika qaala bacduhum tajaratuhum kasan law law tulitu lada li tajrici taarat bi asraci daahibi وقال الشاذلي بهذا المعنى حين كوشف بالحضرة العلي يا رب لا طاقة لي بهذا فاحجبني عنك فقيل له لو سألته بما سأل به موسى كليمه وعيسى روحه ومحمد صلى الله عليه وسلم صفيه أن يحجبك عنه ما حجبك ولكن اسأله أن يقويك فسألته فقواني فعند ذلك لو احتجب عني طرفة عين لمت من لمت من البين ثم قال رضي الله عنه والناس في في هذا على أربعة أقسام الطائفة الأولى شغلته اهتمام السابقة والطائفة الثانية شغلته اهتمام الخاتمة والطائفة الثالثة شغلته اهتمام الوقت ينظر ما ما يتوجه إليه في كل وقت والطائفة الرابعة غرقوا في بحر شهود الوجود المطلق فلا يلم بقلوبهم ذكر السابقة ولا ذكر الخاتمة ولا ذكر الوقت ولا يلتفتون li siwa ma hum fihi wa fi hada yaqulu sariyi saqati ana lam waqitu lwaqti summa yunsitu lastu adri ataala layli am la kayfa yadri bi zaka man yantaqil falaw fartafarragta listitaalati layli wala ra'yi nujumi kuntu mujama muxilla inna lilaashiqina an qisari llayl li wa an tuulihi la fi lxubbi shugla Euh, dars bi ñu ngi koy tëjee laaj bi nga xam ne laajaat nañ ko Seydi Ahmed Tiyaani dafa wax ci dars yi ci gannaaw ne li gën a jafe ci gën a jafe mooy ñi nga xam ne dañoo seddu ci bëgg jëmmi yàlla subhaanahu wa maanaam ñi nga xam ne seen tëjal lii ci mahabbatu zaat la nee ñooñu daanaka yonent yi rek ñoo ci seddu ak aqtaab yu mag yi loolu lan nga ñu ciy leeralaat xam naa sëriñ bi jàngale woon na ko sax ci gannaaw waaye dafay mel ni dafa bëgg gën a leeralaat mu ne na nga xam ne bëgg bëgg maanaam bëgg yàlla ci su boppam ci jëmmam lu jafe-jafe la ba nga xam ne nitu yàlla yu bari sax duñ fa àgg wala àttanuñu ko looloo tax kenn ci ñoom wax ne maa ngi naan kaas boo xam ne xam nga koo gis ñu koy jox kaas muy naan di gañu li muy naan neex na hmm? ah xam nga kay kii naan ci siroté eh, eh, di di di melestiku da ngay xam ne kii li muy naan neex na waaye kii naan di gañ na maanaam bët yi nu ne mu def ko lex yi mu ne nu ne mu def ko ñu koy forcé mu naan naanuma kooku la muy naan neexul nit yàlla yi daf ci am benn nit yàlla bu wax ne maa ngi guux lu wex loo xam ne nii buñ ma nattoo woon ma doon guux sax safara mooy gën a woyof ci man safara ku ko defoon daal benn ndox moo xam ne dañ koo ruyal di ma ka naan loo loolu moo gën a yomb ma naan ko que lii may guux ci bëgg jëmmi yàlla bi ndax leer yi bari na te attanuma ko xam nga ni ñuy sonn nañ seen tiyaan nee na xam nga ne ñooñu tëjaliyaat yooyu ñu am seddul ci ñoom nee na imaamu Shazali moo firi loolu muy Abul Hasan Ali Shazali di sa turandoo dafa wax ne bi ko yàlla uh, ubbilee bi ko yàlla ubbilee dévoiler xadara bu mag bi xam nga malawul ala yaa ngi koy dégg rek malawul ala mi nga yàgg a dégg ku ñu xëyoon rideau yi dox sa digganteeg moom ñu dindil la ko defe naa jotu dem marché nag doo ko amal te adduna yëpp ay tukki ndax kii ma ndax koo xam ne bu doon ndox ci fu kenn nekkul jinne feeñu ko la koy dal nu mu tudda jom te kooku kenn rek la ci ñi nga xam ne soriwuñu yow nag malawul àllaa yëpp ñu ubbil ko xam nga bopp dem moo ci gën a tuuti Chazeli yi nag biñ ko ubbilee alxadratal aliya yi mu daan dégg yëpp mu janoog moom yëpp ne tekk dana yàlla attanuma ko attanuma ko tëjël tëjal tëjal tëjal tëjal attanuma ko bopp dem moo ci gën a tuuti ñu wax ko ci haatif ne ko tee ngaa ñaan li Moussa ñaanoon yonte yàlla muusa ak yonte yàlla Isa ak yonte yàlla Muhammad bi leen yàlla uññilee xadra bi ñoom ñu woon ne yàlla na nga ko tëjaat dañu ñaanoon yàlla pour mu dëgëral leen ñu àttan ko tee ngaa ñaan yàlla mu gën laa dëgëral pour nga attan ko xanaa yàlla baax na de baaxa baaxa baax ba teral la ngay ñaan mu gàggantiwaat la ci ni nga war a ñaanee ngir yéene gum la yéene lim la bëgg may ku ko gën a baax amul yow li ñëpp di wër kaar nga am ko at ñàkk ko attan tax nga naan tëjal tëjal yàlla ne la déet bul wax loolu ñaanal rek ma dëgëral la secret bi ma def ci yow ba nga mën a gis loo gisul woon bu ma ko roofaatee sa jëmma di nga ko attan dëgg la dëgg mas ngaa gis malaaka bu bu jommi malaaka du jommi te fu ne la ñuy dem la la la yàlla roof ci ñoom ba duñ jommi bu ko roofee ci nit nit ki mën a gisu moo tax loo mënta gis ba jàpp kenn mësu koo gis wala kenn mënu koo gis da ngaa réere yàlla rek ko gis nga loolu mooy cër bi gën a metti kenn ki yàlla yàlla da leen koy may mooy li ngay dégg yàlla ubbil leen ko ñuy janoog moom te xamuñu nu ñuy def seen tiyaan yi nag jàngalewaat ci xam-xamam bu bari bi nee na bul sonn nit ñi ñeenti façon rek lañ nit koo gis muy dem ci jullit yi ñeenti façon lañ ci ñi jëm ci yàlla daf ci am kuréel boo xam ne seen yitte benn rek la mooy nan la ñuy rawe ci compétition lañ toll nitu yàlla yi ñu gën a kawe ñi foo leen gis ñu ngi nekk ci naafila di jaamu yàlla ngir rek bañ ku leen jiitu ci yàlla ñooñu kon ci compétition lañ ne perpétuellement ñaareelu kuréel bi ñoom lenn moo leen yitteel nan la ñuy deewee ci lislaam parce que raw ñëpp itam te war a dee yàqu fi ba dem safara dara jaru ko moo tax mooy mag ñooñu nga gis buñ toogoon ci nen du toj ngir ragal ne jaamu yàlla gi ñu nekkee mën nañoo xëy benn bis mu soppiku ñu yàqu ci diggante toujours duñu ree ñooñu ngir tiit tiitaange googu ci leen dëkk ñooñu même sax jëf ju bari yittelu leen mais lii ñu jot a amakus néew nuñ koy rawalee ba dugg bàmmeel mooy seen dund nee na kuréelu ñetteel bi mooy ñi nga xam ne ñoom lii xew ak li xewul yittelu leen ñoom présent rek lan lañu war a defal yàlla tey ci bis bi war naa naafile nangam rak war naa julli nangam war naa def salaatu ala nabi nangam war naa def nangam ci loolu la ñuy nekk di dawanteeg temps bi ba bés bi jeex bu ñu xëyaatee suba di rawanteeg temps bi ba bés bi jeex bu ñu xëyaatee ginnaaw suba di rawanteeg temps bi ñoo rawantel ñu xam nga ku ñu rawantel temps ñooñu xamuñu compétition wu nangam seen compétition ñoog temps bi ñooñu dinañ yenn ci grand place di jëw noonu taluñu ko ñooñu du ñoom sax jotu uy téléphone ndax jàpp ne lañ cay wax akus néew xañ na leen ci temps loo xam ne duñ ko mën a daboote waaye seen tiyaan nee na am na ñu leen gën a yéeme na ñoom ñett ñëpp defe naa ñett ñi kéemaan lañ de waaye ñi leen gën a yéeme mooy ñi yëgul li xew ñi yëgul li xew mooy ñi nga xam ne dañoo seey ci jëmm yàlla ji xamuñu guddee jot xamuñu bëccëg ñooñu rawanteew ñoo kenn ndax yëguñu ne kenn am na ñooñu xamuñu ndax am na ñuy rawante xamuñu ndax am na ñuy ragal muj muj gu ñaaw am xamuñu ñuy rawanteeg waxtu bi ñooñu mooy nit yàlla yi nga xam ne dinañ nekk ci benn xaal tëdd ci benn nit ñaari fan duñu yëngu xam nga kooku doo ko yéena kaan kaay julli de moo tax diw julliwul tey ci da xam ci ban xadara la ne ñi nga xam ne dañoo seey ci jëmmi yàlla ji ñooñu bu dañuy dox ci biir yàlla yëguñu la xew xamuñu guddi jot na xamuñu bëccëg jot na xamuñu ngoon xamuñu dund xamuñu dee ñii ci yàlla rek lañu ñooñu ku leen ku ku dajeeg ñoom ne da nga leen waar dañuy jaxle sax ñoom dañuy jaxle loolu moom moom la sëriñ yu saqat yi toll woon ne wax wax ji ne man maay borom waxtu bi xam nga yàlla moom moom waxtu bi waaye seey bi mu seey ci jëmm yàlla tax na mu ne man waxtu tënku ma ndax may kilifa ak waxtu mu ne lastu adri xamuma ataala lay li ndax guddi gi gudd na man guddi gi yàgg na am laa wala dafa gàtt yëguma ko ndax man vingt quatre heures yeeg vingt trois heures yeeg vingt deux heures yi laa yemale man xawma fuñ toll man ci yàlla rek laa ne ñu ne ko waaw lu tax xamoo ndax guddi gi la gudd naa gàtt na tey nga war di naafila ci guddi gi mu ne déedéet dama xamul kayfa yadri bi zaaka man yata laqa waaw ku nekk en direct ak yàlla yàlla recevoir la audience nooy xamee guddi géeg bëccëg gi te audience bi pareegul man ci xadra yàlla laa ne xamoo ne law tafarraqtu listilaat listitaalati layli wala ra wali rayi nujuumi kuntu mu xilla gis nga boo ma ne woon demal nga xoolal ma guddi gi ndax gudd na wala gàtt na wala xoolal ma biddiw yi dugg na wala génn na nee na nga gis ne moom xaw ma sax li nga wax ñu ci yàlla yooyu xamuñu montre xamuñu heure ñu ne ko waaw lan moo lu la yóbbu ci bii xaal mu ne inna lil aashiqina an qisari layl wa an tuulihi la fi lxubbi shughla gaa yi yàlla yi dëgg dëgg dëgg guddi gu gàtt gu gudd yëguñu ko parce que bëgg giñ bëgg yàlla moo effacé ci ñoom xam heure mu ne Cheikh Ahmad Tidiane nag di wax xam naa moom ñii bëgg na leen torop moom ndax moom mooy taajul aarifin ñi am tajalli yi moom moo leen tajalli mu ne wa saaxibu hada almaqaam huwa saaxibu almuraqabati aluzma wa huwa irtiqaabuhu lilxadrati alilahiya wa ma yabruzu minha min altajalliyati ala ixtilaafiha wa yucti kulli tajallin minha ma yastaxiquhu min alxidmati waladab laa yufarratu fi cheyin minha wala yafuutuhu cheyun minha wa saaxibu hada alxaal laa yaclamu alwaqta wala muruurahu wassalaam وصاحب هذا الحال أيضا هو الغريب والغربة من شدة التغرب في طلب الحق فليس معه مساكنة الأكوان ولا ملاحظتها بشيء جواهرا وأعراضا فلا تخطر بباله وفيها يقال حرام عليك الاتصال بالمحبوب ويبقى لك في العالمين مصحوب وصاحب هذه الشدة تغربه لو تسأل الأيام عنه لما علمت به ولا عرفت أين هو wala arafat makaanahu wa fiihi yaqulu baadu al-akaabir tasattartu an dahri bi dilli janaabihi fa sirtu araa dahri wa laysa yaraani fa law tas'alu al-ayyaama maddarat bi ismi wala ya'rifna ayna makaani wa ilaa haaza al-ishaara bimaa dakarahu Dunnuun al-Masri an ash-shakhs alladhi laqiyahu bi Makka qaala ra'aytu fatan yabkii bi finaa'i al-Ka'ba fa qultu maa alladhi abkaak qaala alladhi qaala lii ana al-ghariibu al-matluub fama labistu an fama labistu fama labisa an xarajat ruuxuhu qaala fa taraktuhu hunaka fi mahal wa dahabtu anzuru fi jahaazi wa kafanihi li ugassilahu wa adfana falamma rajatu falam ajid lahu zaran wala waqaftu lahu ala xabarin qaala summa ta'assaftu wa qultu ya rabbi man sabaqani bi sawaabi fa qiila li hayhaata qad talabahu iblis fi dunya falam yara wa talabaahu munkar wa nakir falam yara yaah wa talaba wa talabahu ridwan xaazinu ljinaani falam yara fa qultu fa aynahu fa qiila lii huwa fi maqcadi sidqin inda malikin muqtadir intaha min imlaayihi radiallahu anhu Seex Tijaan nee na kii nga xam ne dafa seey ci yàlla nit ñi di dund ci waxtu ñi nekk ci compétition ñii di xool nu ñuy deewe ci lislaam ñii di xool nan la ñuy dawal rawanteeg waxtu bi moom mu seey ci jëmmi yàlla nee na kooku mooy borom martaba muraqaba mooy ki nga xam ne dafay nekk en direct ak yàlla dafa mel ni daal caméra la leen yàlla teg rek en direct ñuy wax ak yàlla ñooñu xamuñu waxtu xamuñu heure benn arif billah dañ nekk ko julli mu ne julli lu tax ñu ne ko yàlla nee na wa aqimi salaata li yi na ngeen taxawal julli ngir tudd fàttaliku ma tudd ma mu ne bu dee noonu la de kon ku sëlmal génn ci lislaam waroo zikr kay warul arrêté bu dee noonu la kon ku sëlmal bu dee bu dee ci seen zikr yéen mu ngi aju ci julli kese kon ku sëlmal doon yëfar xam nga ñooñu martaba boobu ñu àgg bokkul ak kii kàbbar war a julli ñeenti rakk te diggante bi xelam wër fi senegal ba dellu ci biir ñeenti rakk yi comme nim ñuy dale kon nee na kooku nga xam dafa yegg ci fukk lu ci yàlla kooku yàlla rek kay doon yitteem moom lay gëstu lépp loo xam ne génn na ko ci ay tajalliyaat ak lu mu wuute wuute moom day xool li ci yàlla namb rek ci jamono jooju mu liggéeyal ko mu ngi mel ni ki ñu jël ci kër nga nekk mbindaan yow du yow yaay taamu li ngay liggéey ci kër boo xëyee rek dangay ñëw taxaw ñu la defal lii defal lii defal lii nitu yàlla yooyu noonu lañ mel ci yàlla bés bu ne amuñ ci choix bés bi daal yàlla mi moom bés bi moom leen moom service bi moom la ñuy déglu moo leen wax li liñ ciy def ak li ci dul def duñ ci ëppal ci dara waaye dara du leen fat boobu borom cër kooku est-ce que dina xam lan mooy waxtu kooku xamul waxtu xamul heure xamul jour kooku li mu xam rek mooy ndigalu boroomam loolu mooy seen cër mu ne loolu nag lañuy ñuy tudde ñi amee cër bii lañuy ñuy tudde cëru xurbatu mooy tumuraak da ngay ci nit yàlla baat bu siiw mu naan man damaa tumuraay te mu ngi ci biir nit ñi waa ji dëkk Yoff ku ne xam ne ne foofu dafa peuplé bu fa nekkee naan dëgg dëgg ni ma tumuraankee war ngaa xam ne ay nit yu ko wéttali taxatul nee na tumuraanke googu moo di wéet gi ñuy wéet ci kudul yàlla maanaam wéetal gi ñuy wéetal seen xol ci jéem a dëkk kudul yàlla ba pare jublu yàlla nag nga xam ne moom rek la ñuy def euh, dëkkuwaay moom la ñuy yëpp moom la ñuy gendiku dara dara jaralu leen bàyyi yàlla moomu dara sax du rot ci seen xel lu ñu war a xalaat moo xam mbiru àdduna la wala ay gànjaru àdduna ñooñu la ñu tuddee maqaamul xurba xanaa kon loolu la Seydi Hajj Maalik waxoon radiyallahu anhu alaa ya rasulallahi ya afdal ya afdal alwara fa fi hada alzamani garibu yow yeneen bi man de damaa tumuranke ci sama jamono te boobu mag ñëpp a nga ko wër mais nee na dafa tumuranke kon maqam bii la ndax ku mel ni moom gisu ko ci biir ci biir ñi mu nekkal kon ñooñu dañoo wéetal yàlla ba nga xam ne dafa mel ni lu dul yàlla xamuñu ko ba bu ñu boo gisoon gaynde ni ngay dawe gaynde ñoom bu ñu gisee nit noonu lañ koy dawe ngir bañ mu dox seen diggante ak seen borom dem nag ba jamono xamatu leen am na nit yàlla yuy dund bu ñu la doon wax ci seen jamono maanaam maanaam bu ñu leen wax bu ñu la doon wax seeni may dangay laaj ci la koy wax xanaa ñooñu dundatul pourtant mu ngi fi ci réew mi waaye dañoo sey ci biir yàlla ba xamatuñu réew mi réew mi xamatu leen te loolu daf ñuy dal léeg-léeg ñu tàggale nit yàlla boo xam danaan waaw kooku ndeke mu ngi doon dund xoolu Seydi Ahmed Tijaani si al ñaata at mu ne ci réew mi di dund ak kenn gisu ko kenn gisu ko ba xëy xëy ñu tàggal ak nga ne waaw kii mu ngi fi woon nee nit nitu yàlla yooyu mooy li waa ji wax góor gi dafa ne te sattartu damaa nëbbu ci sama jamono dama koo nëbbu bisilli janaabi yi ci biiram maanaam damaa nëbbu sama jamono ci biiram fa surtout ara yi man maay gis sama jamono waaye walay sa yaraan yi gisu ma gis nga oto boo ci duggee te mu am vert teinté yow di nga gis nit ñi waaye ñoom duñu gis arif billah noonu la mel ci jamono mu ne falaw tasalil ayaama boo laajoon fan yi mas miya nan laa tudd xam nga ku ñu wax diw maa dara du xam sama tur de xamuma danaan noono ko xawma ko wa na makkaan yi boo ko ne woon fan laa dëkk ma araf na makkaan yi xamuma xamuñu fu ma dëkk maanaam ñooñ jamono da leen tënkul dama wax ne ku seey ci biir yàlla nu la fan yi xame te fan yi di mbindeef mu nekkoon ci junj googu la zunnuunil misri doon tudd zunnuunil misri nitu yàlla bu mag la di arif billah bu kawe kawe kawe kawe euh, nga xam ne misra la dëkkoon nee na dama dem aji ji màkk ma aji jee noonu mooy wëre kaaba ji jekki-jekki gis benn nitu yàlla xaalam yéeme lool nga gis boo xoolee kanam gi rek da gis ne mu ngi ci teewlu gu méttee méttee méttee métti nee na ma jaxle ma nuyu ko ne ko ilaa ay na turit yow fan nga jëm mu ne huwa huwa ci moom laa jëm de ci moom commencé siicu mel ni kuy jooy ma ne moom man mu ne moom laa wax moom ci moom laa jëm te laa uridu illaa huwa bëgguma ku dul moom nee na sama xel dem ci yàlla ma nekk allah rek mu xam ba ma tuddee tur wi turu yàlla nekk xanaa yàlla ngay wax nee na mu ne kadde kadde daanu sedd guy maanaam xëy na dafa xam di laaj di dóor di dóor waaye di nekk dee na turu yàlla ci boppam moo foor ci moom ba boobu daf ko dégg rek jaare fa daanu zunnuni ne def naa def naa pro am naa problème kii ma doon laaj ndax yàlla la mu daanu sama kaw nii ba mu ko wóoree ne dee nag comme mook moo mook nekkoon mu génne doon wëri ji ñu ko jàppale ci sang beeg sang bi ak jëndal ko ay càngaay ak parfum bi mu génnee lijjanti yi mu lijjanti ba dellu si nag bàyyi waa fi mu ko muuroon fekku fa dara dara mu ne waaw wër wër ci koj bi yépp gisul dara mu jooy ne yàlla kii bul ma teg ci moom ñaari nattu benn nattu bi moo gis nga li ko dal ci sama sabab la ñaareel bi ma bëggoon yiw ndax xam naa ne ci sa nit yi la bokkoon ma bëggoon yiw pour man koo waajal sang ka sang ka jullee ko dence ko ngir am ci barkeem gisatuma ko nee benn xaatif woo ma ne ma noppalul zunnun noppalul waa ji wu iblis wër na ko ci àdduna ba tas mosu koo gis kon ndeke iblis am na jaam yu mu xamul sax ñu ñu ngi dund ba tey lu mu mën a mën a yàq bala ngaa yàqal nit da nga koy gis am na xam bi juddoo ba bi ñuy dee iblis yëngu ko yàlla moo leen nëbb inna ibadi laysa laka alim sultan mu ne ko kii àdduna wër na ko ba sonn pour daaneel ko gisu ko bi mu deewee Munkar ak Nakiir doon nañ ko wër ci bàmmeel wër nañu ba sonn gisuñu ko amuñ ci moom accès euh, xaasim mi nga xam ne maanaam Ridwaan mi nga xam ne mooy bëkk néegu àjjana doon na ko gëstu sax pour loger ko ci hôtelam yooyu mais gisu ko amul daraja ji Zunnuni ni ma ne ne ma ne ko haatib bi waaw kon moom fan la ne mu ne fii maqaadi sidqin inda malikin muqtadir yàlla moo ko invité ci intimité bi kenn du am ci moom accès man moom xam nga ni kii kawe na seen tiyaan nag ne nee na ñooñu yegg ci martaba boobu ñooy martabatul xurbati ñooñu du ñu ut kër du ñu ut jabar du ñu ut famille waxuma ne ñi am yi bokkuñu ci déedéet dama ne duñ ci bëgg dara dara dara dara ala himmati fajal ilahi aliyatan yabte surtu xurran xaalisan kulla bi jëti koo xam ne tey bu ko yàlla ne woon kay dee tey tey tey du ne bàyyi ma fi ma fay benn bor mbaa ma jaay kër gële mbaa ma jaay oto bi dara topp leen dara seen digganteeg yàlla dara doxu ko ñooñu ñoo tudd ñoo am mahabbatu zat yal na yàlla fayal ñu sëriñ bi Seydi Ahmad Tijaani radiyallahu anhu yal na yàlla déggloo ñu njàngale yi هذا هو التوفيق من عند الله والسلام عليكم ورحمة الله